Modou Mbaye nuyu naa la. maa ngi lay fay sister maa ngi lay siyaare borom Leewtoo di la nuyu di nuyu waa Leewtoo ak téléspectateurs yeeg internautes yëpp ñu ngi leen di aare bu baax. ñu ñëw fekk la fi nga xamante ne nii euh, organisation nga xam moo ko tëgg du lu ñu bett la moo fi sa taxawaay. comme sa taxawaay yow ñëw ngir ut si information ñëw ngir suivre si ñëw ngir suivre si ñëw aussi ngir xoo ngir jàppa ci bis bi nga xamante ni moom la PABC woote tey Prince mooy suñu frère. nekk nit koo xamante ne nit ku baax la vraiment nga gis ma dend ak Fallou Ndiaye muy promoteur de lutte li day wane ni làmb ji ñëpp benn lañ ndax prince tëgg waaye moom moo nekk ci organisation bi macha allah dañoo ñëw comme nitu lamb rek ñëw suivre si làmb ji. nga nekk nitu lamb suba benn affiche bu mag a mag a mag diggante la Daguerre 2 ak Eumeu Sène loo ci doon jagleel la nga ñu ciy wax. waaw comme combat boobu moom yaakaar naa ne buñ ci amatuñ sax luñ ci wax ah parce que lépp loo xamante ne ni war nañ ko ci wax wax nañ ko ci. def nañu ay face to face dem nañu seeti mbëri yi ba dernièrement yaa ngi gis euh, dimanche passé xaw ma sam mardi passé ñu amoon jàkkaarloo bu am solo ci 2STV yi nga gis liggéey bu am solo buñ ci def. làmb la boo xamante ne nii làmb bu ñu soxla la pour mu déclencher waat làmb indi ko ci niveau bi nga xamante ne moom la ñuy xaare lamb parce que bari na combat bari na année yoo xamante ne nii toog nañu làmb. demeewul nen ni ñu toog depuis mois de mars deux mille vingt ba mois ba avril deux mille vingt et un amul làmb nag bu amee nii wax dëgg yàlla dañ ciy sant yàlla di ñaan yàlla sunu borom suba bis bi doon bis boo xamante ne ci la làmb di jaalee tàq ba faw di ñaan yàlla sunu borom suba bis bi doon bis boo xamante ne ñaari mbër yëpp ku ci nekk di nga ñëw nga remplir sa contrat yi nga xamante ne noonu la waree et que le meilleur gagne combat boo xam du yomb ñoom ñaar bëri nañ ñett ñaari yoon suba mooy troisième fois bi nee góor balaa balaa mu laa mën a yàpp rek daal di la ñam ñoom ñaar bëri nañ ñaari yoon ñi dindi mbubu journaliste bi rek ah en tant que borom xool analyser ñoom ñaar wàllum xeex kan nga yaakaar ne moo doon dominer ci ñoom ñaar. wàllum xeex Eumeu Sène bu ñuy xool ci làmb combat yi gën a métti moom moo ko bëree kon ragalul xeex Lac de Guiers on on le surnomme du Waalo kon xam nga ni combat boobu du ñàkk xeex boo xoolee seen combat bu njëkk dañoo bëree xeex ba làmb ji jeex seen deuxième combat ci jàppante bu njëkk bi rek ci gaawaay avant ñuy avant jël di am ama seen gémmiñam toj na ci dañuy ñaan yàlla ñoom ñaan ñu defal ñu loolu indil ñu liñ indiloon seen premier combat ñu bëree xeex su ko defee làmb ji neex Sénégal yëpp kontaan loolu lañ ciy xaar. maa la gën a kontaanee di la jaajëfal di la encouragé ci liggéey bi bu baax a baax yàlla na yàlla def jàmm ci barke yonent bi.